mbokk yi ànd ak ñoon ci seen chaîne bii di xam sam réew TV maa ngi leen di nuyu di leen ziara amati mbégte lool teewaat fii ci seen émission xam sam réew xam sam réew war a xam ñooñ sam réew ak gox yi sam réew eh, di jégglu rek waxon na len ko ci yee sunu borom dafa dogal ma nek ci tukki te bëgguma li fekk fanweeri dameel li ak ñaar wala fanweeri dameel li ak ñett di mat bis ñew te jotu leen mbor bi mo tax dina ci jema def lu man ak lu mënul di ziaré bokk yépp rek jaare Serigne Cheikh Niang waxoon naa leen ko te yee jàll ci teraanga joo xamante ni defal na ma ko mu dëkk ndànd nekk fii ci Europe waaye di safoo chaîne bi ba tax bi ma gisee xàmmee ma mu defal ma teraanga joo xamante ni yéen ñëpp la ko defal kon sëñ Cheikh ñang ñing koy sant bu baaxa a baax di ko gërëm bokki ñew na ak yeen ba ci ñaar lu damel ak ñaar kajoor muy Amari ngone Ndeela Kumba di damel bo xamanteni ku soroloon ku sonnaloon serigne si la na ci ñu bare bari dem na sax ba am serigne sumu japp jaayoon leen def leen ay jaam xeex yi nag diirub juróomi at mu di ko xeex ak sëriñ si waaye sëriñ si lañ doon man moon alxuraan doonoon ay sëriñ ay jàmbaar lañu woon ci xare ndax man na maa wax ni njabootu sëriñ Kokki Maxtar Ndumbe ñu ci bari ci tooli xare yi lañu des ndax seenu njàmbaar Amari Ngoone Ndeela Kumba bi bu mu sonnalee sëriñ si sëriñ Balla Faaxu Jë di rakki sëriñ Ahmadou Fakko Dia bind na ab leetar Abdul Kader du Xaadar Kan ca Fuuta ngir mu ñëw jàppale si leen ci xeex yi nga xamante ni ñu ngi koy xeex ak Damel Amari Ndeela Kumba waxoon na leen xeexub cax riw maanaam paaloo la njëkk a xeex ñu boom sëriñ si ñu xeex cax ci wetu piir boom sëriñ si ba ñu dem ba ndakaaru sëriñ ndakaaru jàppale leen ba am Amari Ngoone Ndeela Kumba kub xareem dellu siwaat kajoor bi nga xamante ni bii sax sëriñ ndakaaru jàppale na sëriñ si ba ñu ñëwee ci moom dameel amari ngoone ndeelu kumba waajaat na ngir somb leen waaye song booba jëliwu ca ndam ndax dafa bari ñu mu ca faatule sëriñ si ànd ak sëriñ ndakaaru dal ci kawam tox toxal ko boo tax mu dellu si kajoor wax nañu ni sax ndam loole sëriñ ndakaaru am ci moom ak sëriñ ci ca la ñu jaare ba ndakaaru nguyaay dameel yilifatu ko bi amee nag ñu teg ci weer sëriñ Balla faa xujja daal di bind leetar almaami bu fuuta di Abdou Khader Kane mi nga xamante ni jamono jooju mu ngi doon jihaad di xeex ngir lislaam foofee ca fuuta bi mu jotee leetar bi li ñu def sëriñ si jullit yi metti ko lool mu daldi waajal ab xare ngir ñëw jàppale ci sëriñ ci ngir jamarlo ak damel Amari ngone Ndeela Kumba ma ngi fi ak lettre bi nga xamanteni ni Balla Fakkuja bindoon bindon nako almaami Abdou Khader Kan ci bi direct motax tax ma len ko won la dina leen ko woon bi ñu bindee almaami Abdou Khader Kan nag mu daal di waaj ni moom bu duggee Kajoor moo xarem bi bàyyi ko Fuuta ab ceddoo dootu fi des waaye da mel Amari Ngoone Ndeela Kumba dajale mbooloo mu baree baree bare ndax bu doon ne xareb kajoor bi rek waaye kajoor ak bawal la boole ndax dameel teeñ la woon mu dajale xareb kajoor bi ak xareb bawol bi daal di ñëw fa ñuy wax bongoy di fa xaar almaami Abdou Khader Kane mooy xare bongooy ngi amoon ci atum junni ak juróom ñaari téeméer ak juróom ñeent fukk ak juróom mil sept cent quatre-vingt-quinze nga xam ni Damel Amari Ngoone Ndeela Kumba juróomi atam yu njëkk yépp da ko xeex ak sëriñ bi ak sëriñ si xare boo ngoy boobu nag di xare boo xamante ni mboor jàpp na ko dañ koy fàttaliku ndax metti koo xamante ni bii metti na ko am na ñu wax ni almaam bi Abdou Khader Kan dañu ko wor waaye lu lu ca man di am daal xare ba metti na ba tukkuleer yi nga xamante ni bii ñoo àndoon ak almaami Abdou Khader kan daanaka ñoom ñëpp dañu leen a faat almaami Abdou Khader kan ñu jàpp ko def ko dañuy wax prisonnier waaye Amari Ngoone Ndeela bi mu ko jàppee faatu ko daf ko waajal jox ko aw fasu naaru góor ne nañu jox ko itam ñaari jaam yoo xamante ni ñoo ko santu ba mu dellu fuuta bi loolu amee nag Amadou Ngoné ndeela daal di dellu si barjal yi nga xamante ni bii ci gëblaam la woon ba mu ñëwee lan la def nanga nga ni bii moom ngoo Ngoone Ndeela Kumba nijaayam di Prima mu Penda defoon na ko ko moom it juróomi at yi nga xamante ni da koo xeex ak sëriñ si ba xare boobu ci mujj nga xamante ni almaami Abdou Khader Kan wax nañu ni loolu ko dal kajoor ba mu delo foot lolu top nako ba ci la ñak almami ga ba ni ko faté foofee ci foot moom jambar joji nga xamanteni jambar l'islam la won don jihad don ngir l'islam kon Amari Ngoone Njaay Kumba bi mu dellusee barjal ñuy gëblaam jarbaatam bi doon wax bi mu fat ma cubb mu def ko na ko nijaayam Birima mu Penda defoon ndax moo Amari Ngoone Ndeela Kumba ba nijaayam Birima Fatma Penda Falo da ko génne mu dem walo bu fukki ak ñet yi ni jaayam doon damel yépp jaaru ko Kajoor moom it bu mu defee juróomi at ci ndamel gi dafa génne jarbatam bi di Birima Fatma Cubb génne ko kajoor Birima Fatma Thioub daal di dem Saalum bi mu demee Saalum nag moom Birima Fatma Thioub ay weer la def Saalum waaye weer yooyu mu fa def ma nga doon dajale mbooloo di wut ak wall moom Amari Ngoone Ndeela Kumba ba ko nijaayam génnee mu dem waalo moom jëmute xeex ak nijaayam waaye Birima mu Cubb moom bi ko nijaayam Amari Ngoone Ndeela Kumba génnee mu dem Saalum moom dafa dal di lijeenti mbolo lijeenti fa ab xare ngir wajal dellu ci kador ngir songu nijaayam Amari ngone ndela Kumba mi nga xamante mo bii moo mo sonnalon sonnaloon ci si lool Brifam Fatma Cubb bi mu dajale ab xarem ak ñooñam dafa daal di ñëw fi ñuy wax njoog ci Bawol ba nijaayam Amari Ngoone Ndeela Kumba déggee ni mi ngi ñëw ku xare mu daal di koy kar ñu daje fa ñuy wax njoog di dëkk ci Bawol nijaayam daal di ko fay kar muy dameel teeñ amari ngoone ndela kumba daldi di tampaloo ak jarbaatam bii di birima fat mu cuub ñu xeex xeex bu metti muy xarab njoog boobu waaye dameel jëlewu ca ndam ndax jarbaatam bi di Birima Fatma Jóob réyut nijaayam de waaye nag bom na ko ba rey ci xareem lu bare bare bare bare bare waaye jàmburi kajoor yi lank ni duñu fal Birima Fatma ciubu damel résultat melteñ amari ngori ndeela kumba nijaayam waaye bob na ko waaye ba ko bomeel jàmbur yi kajoor yi dañoo lànk ñu duñ ko nangu muy doon seenub dammeel Amari Ngoone Ndeela Kumba am lu ko metti lool daldi bàyyi ko ndoob ca Bawol dellu si Kajoor waaye naqar woowee ko dal ca mu mel ni la mu lebaloon sëriñ si fay nañ ko ko boobu mu xeexee xarem ndoob bi te jarbaatam bii di bi mu fat mu cubb bom ko faatu ko waaye reyal na ko lu bari naqar woowee dal di jàpp Amari Ngoone Ndeela Kumba mu dal di dellu si Kajoor waaye ba mu dellu see Kajoor am at la fa dundaat ci naqar ak am lu ko metti ba ci atum junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñeent 1809 Dameel Teeñ Amari Ngoone dal di faatu gannaaw ba defee ñaar fukki at ak ñaar ci ndàmmeel gi bi mu faatoo nag jarbaatam bii mu génne woon mu dem Saalum di mu Fatma mu te jàmbur yi Kajoor yi nanguwuñ ko woon a fal moo wuutu nijaayam jooju di Amari Ngoone Ndeela Kumba moom Birima Fatma Thioub doon ñaar fukkeelu dammeelu kajoor ak ñett mbokk yi kon fii lañuy ñuy yemale ñaar fukkeelu pàcc bi ak juróom-ñaar bu ñëwee ci ñaar fukkeel bi ak juróom-ñett nag ci la ñuy ñëw ci dammeelu Birima Fatma Thioub moom mi nga xamante ni bii moom itam digganteem ak sëriñ kokki njaga isa doyoon na waar kon maa ngi leen di sant di leen gërëm di ziare bokk yi nuy safoo yépp ci pango gi nekk ci facebook di ñuy safoo seen chaîne bi di xam sam réew tv support xam sam réew ci amérique di jàppale seen chaîne bi sëñ bamba meng El Hadji Malick Sy Gaye ak sëñ ale fall sëñ pap ndaw sëñ ballaloo sëñ ñomre Cheikh Abdoul Aziz Touré ca Fass ak bokk yi safoo seen chaîne bi yëpp ak sëriñ Jili Mbacke maxtar moom sëñ Modou maxtar moom it ñu ngi koy ziare bu baax a baax yéen ñëpp noo ngi leen di nuyu di leen ziare di leen bége di jégalu rek ci peñ ni mel maanaam muy qualité image bi yaakaar naa ni di ngeen nu ko jéggal ndax lii lépp bëgg lu leen neex rek moo tax nu di ko def kon maa ngi leen di sant di leen gërëm te di leen jox dox daje ci ñaar fukkeelu pàcc bi ak juróom-ñett wala vingt-huitième épisode